Les coono jeex nga daldi am sa application Dakar Buzz ci sa biir téléphone di am rek bépp information bo soxla ci lu ñeel politique société people fait divers ak ki ay entretien yu muccu ayib yow mu dess dawal gaaw télécharger ji sa application Dakar Buzz sur Play Store